85 ci Ndar ci la gane jamono loolu itam maalum lu xam la waaye Cheikh Al Hadj mi nga xamni moy mooy way juróom dafa am ben alaqa bo xamni dafa dox ci digëntem ak Cheikh Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu parce que boné Cheikh Al Khalifa ak tariqa tijan Cheikh Al Khalifa ak Cheikh sayyid Ahmed tijani radiyallahu anhu bala ngay yegg fofu il faut nga xam kan moko tokki ci lolu parce que digganteem ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane dafa am ku ko nooyalal yoon wi. dafa am ku ko nooyalal yoon wi dafa am ku ko nooyalal yoon ba mu nooyi mu soog caa mën a naaru góoru cofeelam. Mhm. xam nga. Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu mhm. Mhm. E, am li am. addina. wala boog ñett rek a am. alal xaqiqa. ñett rek moo am. uluhiyatu moo am. ak nubuwatu. ak wilaayatu ñett yi rek am. loolu mooy lan. uluhiyatu moo dig yàlla. nubuwatu moo dig yonen dinaa ko leeral. wilaayatu moo dig pal ca yàlla. dinaa ko leeral mooy pal ca yàlla. ak wilaaya boo ko déggee mooy ko am ak pal ca yàlla. da am nay màndarga nag danaa ci ñëw. ñett yi benn bu ci nekk. Cheikh Al Hadj Malick anhu daf ko jàngale. tënk ko ci benn téere téere boobu moom la ñuy faral di ñaane ci fala budda min shakwa mm-hmm. Cheikh Alhaj Malik radiallahu anhu ñett yooyu la ci tënk uluhiyatu ak nubuwatu ak wilayatu mm-hmm. xam nga fala budda min shakwa ila llahi kurbati fa maa liya gayra allahi jaabiru kasrati loolu uluhiyatu rek la mm-hmm. fala budda mënu la ñàkk min shakwa ci sama tawat ila llahi jëme ci yàlla كربتي سما نياخاري داخ فما لي غير الله او ما كنن كوم يالا كو خامني جابيرو كسرتي دنا جاني با موي تبخ سما رك رك من شيخ الحاج مالك لول موي الوهيه توحيد بيمو باري تي لولو تي غاتال دا فا ديم فيا حي يا قيوم يا الله ربنا اليك توسلنا بخير البريه وشفعه فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبه muy nubuwatu muy nubuwatu fa ya xayyu yow mi nga xamni yaay ki dund te do de dunduk yàlla gi bul ko natale ak sunu dund nga xamni bo lekul dara mën na xew bo nanul dara mën na xew tax bo demé ci sa xirsul yamani moy mooy sayfi bi mi jàngale dunduk yàlla gi daf ko ni wa ashhadu annaka hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa xayyun baada kulli mayitin wa xayyun lam tarisil xayaata min xayyin loolu mooy lan إليك توصلنا بخير البرية يا حي يا قيوم ربنا إليك توصلنا بخير البرية يا حي يا القيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية وشفعوا فينا باللقاء وكلنا سوى الحب موصوف رهبة بآدم إدريس وهود ويونس ولوط ونوح سوء محاذ لخلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ذوم عيسى الوسيلة كذا زكريا شعيب وصالح تقي نار الدارين من كل وحلتي ومن آل بيت المصطفى جمع شملنا يا صاحبي كشو يا قيوم يا قيوم ويا الله ربنا ربنا إليك وصلنا بارك الله ليجي نك ليجي نك faaw ngeen di tekk ba ci kanam ndax fi mu toll alaaj saam nit ñi mar nañu la waaye mar nañu wax nag mu développé tuuti mandal nu ba ñuy bëgg mandi ngeen ñëwaat cheikh ahmed léegi yaa ngi ci nubu watu waaw e, tabarakallah dafa am benn laytaay bu ndaw rek boo xam ni suñu ko defulee rek li ñuy bëgg a wax du leer waaw ndax maanaam bala ngaa dal ci Serigne babacar si waaw il faut nga am foo jaar waaw munul waaw munul ñàkk mhm. munul ñàkk loolu moo tax ma ni Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu bi mu jàngalee uluhiyatu mu dikk yàlla ba noppi wax lan moo di ak yàlla ak nuñ ko war a wéetale ci lépp dafa jàngale nubuwatu te moo di def ni fa yaa xayyu yow buur yàlla yow mi nga xam ni yaay ki dund ma ni nag dunduk yàlla gi il est vivant waaye bul ko natt comme yow sa dund ni nga dunde mhm. nga xam ne yow boo lekkul wala naanuloo dara xew mhm. déedéet moo tax ma ni boo demee ci sa xisbu sayfi mhm. nga dégg bi muy bàkk yàlla daf ko bàkkee wa ashhadu man maa man maa man maa fekke kenn nettaliwu parce que baatu shahada loolu lay loolu lay firi wa ashhadu waaw loolu lay moo ko lisimal di wax seede shahida la parce que amul baat bi moo tax muy wax seede mais moom la tubaab di wax témoigner maanaam man maa fekkee kenn nettaliwu ma léegi nag mu des nga war a ramper ba keroog ngay àgg ci maqaamu shahada ndax nit du ci jiit du ci njëkke moo tax man maa fekke kenn nettaliwu ma annaka xay werante amul ci ne yow buur yàlla ku dund nga qabla kulli xay la jëkk gépp dund mhm. wa xay ku dund nga baada kulli xay gannaaw gépp dund mm-hmm. wa xay yow buur yàlla ku dund nga baada kulli mayit bu ñëpp demee ba dee ba ñëpp faatu mm-hmm. yow ko dund nga waaye mm-hmm. itam wa xay lam tarisul xayaata min xay yow buur yàlla dangaa dund dund goo donnewul ci liy dund allahu akbar loolu mooy fa yaa xayu ji cheikh alhaaji malik di junj ba teg ci nag yaa qayuumu Mm. yow mi nga xamni ya taxawé sa mbiri bop taxawé mbiri kenen té do tayi mm-hmm. lolou motax alquran mm-hmm. ayatul kursi bat bu ci nek morom mom mokay firi allah la الحي القيوم موكو فيري الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم موكو فيري لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض موكو فيري بچا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم موتاخ مو نيك سيد الآيات شيخ الحاج مالك نكني فيا حي يوم دوند تدو دي te donne woo sa dund gi ci luy dund mhm. yaa qayyuumu yow mi taxawe sa mbiri bopp taxawe mbiri keneen yallaahu yow buur yàlla mi ci tur yu kawe yi ak melo yu selli yi la ko mhm. mag ñi daan firee mhm. yow buur yàlla mi ci tur yu kawe yi ak melo yu sell yi yàlla kenn waru koo sàllalu moo tax mag ñi dañ daan wax buur yàlla waaye tëb naa ne yàlla yàlla yàlla te sa baay bi la jur ñemewuloo jaar ci turam loolu lu ñu war a setaat la buur yàlla lañ war a wax mais pas yàlla yàlla yàlla moo tax buur yàlla lañ war a wax mag ñi loolu lañ daan wax hmm. yallaahu yow buur yàlla mi ci tur yu kawe yi ak melo yu sell yi ilayka tawassal naa li nu bëgg mébét ko ci yow hmm. ñi ngi ñi ngi koy jottalikoo am na ku nu doxale ci sa diggante ak yow hmm. muy suñu moyen bi nga xam ni moom lañuy ñuy wute lépp lu ñu bëgg ci yow te kooku mooy bi xayril bariya sallallahu alayhi wa sallam muy gën ji mbindeef yàlla subhaanahu wa taala li mu bind yëpp yonente bi alayhi salatu salaam moo ci gën mhm. waaw moom doo nga baax lépp lu yàlla baaxal gannaaw bi ci ci mbaaxu yonente bi la ko yàlla baaxalee moo tax mu ni ko ilayka tawassalna bi xayril bariya ba pare ni ko nag maa ngi lay ñaan man Cheikh Alhaaji Malick ëllëg ca kanam yàlla maa ngi lay ñaan yow yàlla wa shafi'hu fiina moom yonent bi yal na nga ko ràmmuloo ci ñun yal na nga ko wax ni ko ishfa tu shafa sal tuta yal na nga ko ko wax ndax wa kulluna ñëpp ba ci man Cheikh Alhaaji Malick ak képp ku ma yaakaar way way siwal xibbi bu weesoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam kookee mawsuufun bi ru'bin wa rahba dana tiit dana jaaxle ak kookee ku mu laa wax ëllëg ca kanam yàlla da nga tiit da nga jaaxle kenn rek mooy mooy mooy jóg te du tiit te du jaaxle ca kanam yàlla mu di yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam loolu moo di nubuwatu moo tax yàlla benn la hmm. waaye kenn la waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam it kenn la mboole yonent yëpp dañoo bànqaasoo ci moom hmm. sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy firi xaatamu nabiin tekkiwul yonent bi mujj ñëw hmm. li muy tekki mooy ki nga xam ni mboole yonent yi mooy ki leen mëtal mottali leen mottali gi loolu la waaye du mottali ku mujj ñëw Hmm. déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam mënul nekk imaamul mursalin bëlbatiku bëgg a nekkaat xaatimul nabiyin loolu contradiction la mooy njiital ñi yàlla yoon yónni njiit mooy ki jiitu hmm. ba pare nekk ki mujj ñëw déedéet mujj ñëw gi li muy tekki mooy moom yonent bi alayhi salaatu salaam moo di aslun li jamii nabawaati fa kullu nubuwatin tatafarrau min nubuwatihi wa illa fala nubuwa moom yonent alayhi salaatu salaam mboole cëri yonent yi ci moom la ko yàlla di teggee jox ku mu moom mooy yonent mom la lolou la Cheikh Al Hadj Malick di wax ilayka tawassalna bi xayril bariya lolou moy nubuwa legi nak mu dess benen bi nga xamanteni bi ni modi wilayatu Cheikh Al Hadj Malick tëb lu bari waaw dugal na fi ñaar fukki yonent ak juróom yi lolou rëmz la duma ci dugg dugal na ci alul bayt rëmz la duma ci dugg dugal na ci mom ci bopam ci madad dahr wal ayyam waye lim am solo moy limni ilahi manam maanaam ay jundju ay jundju ay jundju la waye limuni ilahi bi qutubil aarifina imamina rajaa وغوثي للإله وسيلتي ختام نظام للولاية جملة به أرتجي الغفران من كل ذلتي به أرتجي فتح المغاليق كلها كوكي كندا وقايتنا التجان من كل شدتي لول ما ولايته دفني إلهي ilahi yow من yàlla mi ñu war a jaamu ci al maabudu bil xaq loolu mooy baatu al aliha moo tax la arab yi bi yeneen ñëwee di leen wax laa ilaha illa allah mënuñ ko wax parce que dañu xam baatu aliha lu muy firi al maabudu bil xaq mooy ku ñu war a jaamu ci dëgg leneen li ñuy jaamu caaxaan la moo tax laa ilaha illa allah diisoon ci seen làmmiñ cheikh alhaaji malik ni ilaahi yow buur yàlla sama yow mi nga xam ne yow lañ war a jaamu ci dëgg bi qutbil aarifina maa ngi jokku ca ka nga xam ni mooy sangu mboole ñi xam yàlla Sidaaji Malik radiyallahu taala anhu lu waay xamadi xamadi xam ni wa ma yantiqu anil hawa Sidaaji Malik du wax ci bànneexu bakkanam fi bàyyee ñëpp mu wax ni Cheikh Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom moo di qutbul aarifin mooy sangu ñi nga xam ni képp ku xam yàlla Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy sa sang ci xam yàlla ba pare ni imaamina Sidaaji Malik ay waxam daanaka dafay nuroo parce que dafa nekkoon nit koo xamante ni bii nii dafa fidèle fidélité am day feeñ ba ci ay waxam xam nga ilaahi bi qutbil aarifina imaamina amara nabiyu imaamana wax yi benn lay doon foo ko fekk yow bur yàlla mi ñu war a jàmm ci dëgg maa ngi jokk ca ka nga xam ni mooy sangu képp koo xam ni ku xam yàlla nga kooku nga xam ni moo di suñu njiit mboole ñooñ yàlla waxuma waxu tariqa de waxu wilaayatu laay wax mboole ñooñ yàlla laa wax benn sang lanu am ci yàlla muy Cheikh Seydi Ahmad tijani radiyallahu anhu bu ñuy jaawale wilaayatu ak tariqa bokkul jotewuñ dara mu ni kooku rajaa yi mooy sama yaakaar man alaji malik wa gawsi mooy sama kattal lil ilaahi ca yàlla waaye wasilati mooy sama buum gi may jokkoo ci yàlla mooy sama buntu ci yàlla kooku kan la ci gàttal mooy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu gis nga nag kon Sidi Hadj Malick mm-hmm. bu fekkente ni bii ni eh, jàngat nañ li ma wax ci gàttal rek mm-hmm. tatbiq ko dañuy daal di yëg ni kon moom ñett yi benn bu ci nekk wax na ci jàngale na ko yaatal na ko ba mu leer bind ko bàyyi fi muy uluhiyatu ak nubuwatu ak wilayatu cheikh al xalifa nag radiyallahu anhu keroog ba cheikh alhaaji Malick génnee addina dafa am benn naar boo xam ni موم مودان وقف القران وقت القيلوله للشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه موم مودان جانغال القران سيدي الحاج مالك جامونو بودان سيست نار بي ميغي تودون احمد لبا احمد لبا كيروك بي شيخ الحاج مالك генي ادينا رضي, رضي الله عنه نار بوبو دي دا فا ديم في تي بورو سالوم ام بن غور يالا بو ماك بوم فاسيتي كوكو دي وقتان اك موم دال دي نيكو يو دي نيكون غاك شيخ الحاج مالك في انفاسه الاخيره nekkoon nga ak moom fi ayaamihil axira nekkoon nga ak Cheikh Alxaaji Malik ca fanam yu mujj ya mhm. nekkoon nga ak Cheikh Malik ca nokkeem yu mujj ya mhm. te nitu yàlla lu mu nëbb nëbb nëbb nëbb nëbb ak lu mhm. ci nokkeem yu mujj noo def mu am lu rëcc dama bëggoon nga wax ma ci ci ci ci ci Cheikh Malik loo xam ni lu am solo lay doon Ahmad Labba ci boppam ni ko xam naa ni Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu am na ñetti mbubb Niko amna mbubu xam-xam mhm. amna mbubu barki amna mbubu wilayatu gor gi diko ko mu daldi niko budé mbubu xam-xam bi mom cheikh malik radiyallahu anhu summi niko solal nako cheikh al khalifa radiyallahu anhu muy serigne babakar si de nga wax bi mhm. loolu la ko wax daf ko ni amna ñetti mbubu mbubu xam-xam mbubu barke ak mbubu wilaya su dé mbubu xam-xam bi موم شيخ الحاج مالك سمي نكو سولال نكو شيخ الخليفه رضي الله عنه بوكو نتي لي تخ ويام نقري لجنتي مونيكو بودي بوبو باركه بي نكو سلال سولال نكو شيخ الحاج محمد المنصور رضي الله عنه مونيكو بودي بوبو ولايه بي مونيكو سمي نكو سولال نكو شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كوكو دغنا دا فا خاوا صاح جاخاسو بو توب دال ديكوي العزيز ولي ولا مونيكو الحاج العزيز ولي ولا mu ne ko alxaaj abdul aziz waliyu la mu ne ko alxaaj abdul aziz waliyu la ba muy ñett yoon mu ne ko alxaaj abdul aziz waliyu kaamil la ndax waliyu mooy xam waliyu ku dul waliyu munul seede ci nit wilaayatu te alxaaj abdul aziz moo jàkkaarloog cheikh al xalifa daal di ni ko maa ngi tagg géej goo xamante ni bii ni géej gu mat la di ko tagge ci baxru boo xamante ni bii ni moom lañ tuddee baxru kaamil fa min al buxuuri ixtartu maanaam wullu yu mooy xam wullu yu amul werante ndax wilaaya du luy feeñ moo tax diggante nit keeg borom bi la moom nubuwati waliyu mooy xam waliyu amul werante parce que moo tax nit warul dàq wilaaya ci nit déedéet ak lu kookee bon bon nit warul dàq wilaaya ci nit ak lu kookee bon bon ndax wilaaya mbiru suñu borom la ala jab dina ko lan fa min albuxuur ixtartu baxra alkaamili likamaalihi fi matxi cheikhin kaamili allahu akbar ma sha allah